Seydina Adama alayhi salaam te nag ñëw ci seen kan ci Seydina Idrissa alayhi salaam noonu lañ ko fas yéene toppalante ba niñ leen ko waxee woon rek ba yonente yépp daal di mat incha allah ci kàttan yàlla bu ko borom bi nammee noonu lañ leen ko indil waaye seen flash point comme moo leen koy jagleel boo leen ko bëggee am saa su ne da ngay ne abone rek ngir ngay mën a am mboolem ñu loo vidéo ba nga xamante ni ñu ngi koy amal ci barab bi kon mbokk yi tey nag ñëw ci Idrissa incha allah danañ leen indil Idrissa ay melokaanam nan la meloon waaye tamit ni nga xamante ni moom la ko suñu borom subhanahu wa taala jagle woon may yi nga xamante ni moom la suñu borom jagle loon ak tamit ni nga xamante ni nee nañ noonu la demee ci ñeenteeli asamaan ñenn ñi wax ni aljana la jot a dem noonu la leen koy toppalee incha allah mbokki bi ñu waxee nag nabi Idrissa min zuriyati sayidina adam aley salaam bokkoon na ci setu yonente yàlla aadama alayhi salaam waaye tamit am nañu ni bokk na ci ki nga xamante ni moom yonente yàlla idrisa ci sëtu siisa siisa bi ñu ko waxee siis moom adama moom moo ko juróom am na nag ñu ni papaam mi ngi mi ngi tuddoon bard bard am na ñu waxoon noonu la waa waajuram bëggoo tuddoon waaye comme que téere yi dafa am ay ixtilaaf bi ñu ko waxee mooy ay wute lu ci mën a xewleet moom yonente yàlla idrisa mi ngi tuddoon ax nuux am nañu waxoon noonu la tuddoon turam dëgg kon jàng nañ si ñu tudd woon idrisa ñu ne baatu idrisa bi kon fan la jóge ñu ni dafa bëri woon xam-xam ci fànn bu nekk xam-xamam dafa màcc woon ci fànn bu ne mu demoon ba waa dëkkam tudde woon ko idrisa maanaam jàngalekat gi ki nga xamante ni moom mooy jàngale ndax mbokk yi yonente yàlla idrisa xam-xam bi ko sunu borom mayul mu seetloon lool ba tax na nee nañ jotaayam bu mësaan a toog ay fukki junniy junniy nit ñoo ko daan wër mu leen di baaxee xam-xam boobu nit ñu bëri daan jariñu si xam-xam boobu moo taxoon nit ñi daal di koy sopp waaye sopp bi nga xamante ni moom ñoo ko soppoon nag waaye nag yonent yàlla Idris teewul mu daal di beew da daan toroxlu daan jaam suñu borom lu bëri nee bokkoon na ci ay melokaanam ku dëggu woon la nekkoon na nit ku dëgg waaye nekkoon nit ko nga xamante ni da daan sellal daan yéwane lu bari waaye nekkoon nit ka nga xamante ni dafa bëggoon jaamu yàlla suñu boroom lu bëree bëri ba tax na sax yenn téere yi nettal nañ bëgg jaamu yàlla bu bëri boobu moo wa moo waraloon mu daan dugg li ñu naan xalawatu am na ñuy wax loolu mooy yonent bi njëkk tàmbalee dugg li naan xalawatu bokk na ci ñi nga xamante ni nit yàlla yi moom la ñuy def bu ñu bëgg àgg ci yàlla am na ñu ni moom idirisa bokk na ci ki ko njëkk def ngir la ngir gën a kennal borom bi subhanahu wa waaye tamit yamu ci daan bëgg di gëstu li nga xamante ni moom mooy xam-xam ba tax na nee nañ téere yi nga xamante ni maamam wàcc woon na ko fi ku ci mel ni aadama ak maamam bi nga xamante ni mooy siis nee nañ téere yooyu daan na ko jël di ko gëstu la nga xamante ni moom lañ ci jàngale mboolem fànn ci wàll xam-xam daan na ko gëstu ba loolu tax moo ko mayoon nee nañ moom moo doon nit ki nga xamante ni moo njëkk a bind ci kaw suuf moo njëkk xalima big daal di bind ci kaw suuf moom yonent yàlla Idrissa waaye tamit am na ñu ni moo njëkk a ñaw yére moom Idrissa moo njëkk a ñaw yére waaye tamit moo njëkk a am xam-xam alimu nujum alimu nujum bu ñu ko waxee mooy xam biddéew mooy xam bi nga xamante ni ci ngay seete lu bëri la nga xamante ni mën naa xew ci àdduna bi neen na xam-xam boobu moom moo ko njëkk a jàngale moo ko njëkk mën ci kaw suuf waaye nag foofu nag am na ñu ci wuute. am na ñu ni da koo gëstu ba mën ko am na ñu ni Jibril alayhi salaam moo ko ko jàngal ndax nañ xam ni yàlla mi ngi ko yónni woon ci dëkk ba nga xamante ni dëkk ñooñi yóneen ñooñu xaabil lañ woon bu ñu waxee xaabil mooy ka nga xamante ni moom moo reyoon haabil kon kooku ay ñooñam dañuy xaw a kàccoore am na ñu ni fa yàlla yónni woon bi nga xamante ni dem na ci dëkk boobu fekk leen nag ñoom ñu bëri woon xam-xam xam waaye ban xam-xam la xam-xam njabar ne dañ ko mënoon lool yónni ko ci dëkk boobu donte sax moom am na xam-xam waaye xam-xam boobu nag dese woon na ko mën am na ñu ni ci la Jibril salaam benn bés ñëw yor jëmmi nit fekk ko mu toog ci àll bi di wéetal suñu borom mu ñëw nekk ak moom ñuy waxtaan ci ni waxtaanee noonu mi ngi koy jàngal xam-xam yàlla mu ngi juum waaye Jibril alayhi salaam bi ñuy waxtaan noonu mu koy bindal ci suuf di ko rëddal ba xam ni mën na ci la ko ni nag ma seetal malaayka bu ñu naan Jibril fan la nekk fan la fan la nekk. te xamoon na ni malaaka ci kaw asamaan lay nekk bi mu waaye Idrissa bi mu seetee seet gis ni Jibril alayhi salaam mi ngi ci kaw suuf mu xoolaat di xool saa bu jé xoole rek gis ni Jibril da ko gën a jege mu xool ba xam ne Jibril mu ngi ci wetam bi mu siggee ni ko est-ce que du yow yaay Jibril ci la Jibril ni mes am na ñu ni Jibril ci la xamee ni kon xam-xam boobu ñor na ci moom mu daal di boole xam-xamam ak xam-xam boobu ñu naan al mu nujum daal di ko utiliser ci dëkk ba moo tax woon waa dëkk boobu yëpp daal koy fonkoon daal di koy gëm ba am nañu ni bokk na ci yonent yi nga xamante ni yi seen xeet gën a gaaw a topp ndax lan ci baaxaay waaye ci xam-xamam bi nga xamante ni suñu borom joxoon na ko waaye xam boobu yëpp daaw ko puukareewoo lu dul lan das daan dimbali nit ñi daan leen jàngal daan leen dimbali nan la ñuy mën a créer nangam nan la ñuy mën a defaree nangam waaye ci loolu nag la yonent yàlla Idrissa nekk di jariñ nit ñi. waaye tamit nekk ka nga xamante ni tam day day boole jaamu yàlla di ko sellal di ko wéetal waaye nag nekkoon ku mënoon a joxe ñam nee nañ danaan jël ñam ñu bari defar ko daal koy yëkkati ci loxoom di ko séddale ñi nga xamante ni ñoom lay wooy foqaraay mooy néew doole yi ba loolu taxoon nag kiñ naan malakul Azraïl namoon kaa seetsi Azraïl moom bi nga xamante ni jëfam jëfu Idrissa rafet na ko lool mooy Idrissa mu ngi def lu baax mu ngi mi ngi jël alalam di ko jox néew yu doole yi waaye xam-xamam mi ngi leen koy jàngal tamit di leen jàngal xisaab am na ñu ne almu xisaab tamit calcul moo ko njëkk jàngale. waaye lu baax loolu tam doon def daan woor at nag yoo xamante ni daka daan wooral suñu borom am na ñu ni bokk na ci ki njëkk commencé woor at moom yonente yàlla Idrissa ngir fonkoon jaamu suñu borom sax lim daan def lu sell loolu moo taxoon suñu borom jagleel ko benn may boo xamante ni lekkam àjjana la daan jugee bu heure jotaan lekkam àjjana la koy suñu borom daan jëlee malaaka yi indi ko ngir leen fonk bu ko suñu borom fonk waaye malaaka yi nag daan ko bëggee lool bëggoon ko lool daan yéemu ci moom ci ni mu baaxee ak xam-xam bi mu am ba ne leen ci loolu la malikul mawtu azraïl ñaan suñu borom subhanahu wa ni ko yow borom bi dama bëggoon nga may ma ma dem seeti ki nga xamante ni moom moom mooy Idrissa ma dem ziyaare ko nee nañ bi nga xamante ni Malikul Mawtu ñëw na ci moom ñëw nekk ak moom ñëw xamal ko ni ko dama laa ziyaar si damaa dégg ñu ni ku baax nga waaye xamuñu ko moom boppam moom mooy kan ñëw ziyaare ko Idrissa dalal ko këram nee nañ bés boobu jamono yooyu Malikul Mawtu Azrail am na fa ñett fan waaye ñett fan yam fa am lépp Idrissa bu ko joxee lekk du lek bu ko joxe nan du nan loolu tamit yemon Idrissa nee bi nga xamanteni passé na ñett fan ñi ngi dugg si fan bi ci Idrissa nak waxe ne ko kat man kat dama dama damaa ci yow ndax lima jaxal moy sa bu ma jox la wala nan do nan do lek yow xanaa lek lekk nan naan mun ko déedéet duma lek duma nan ma ko kon lan nga ko malaika la ko yow yaay kan ci la ne ko man may azrail man may jër ruuxu doomu bi loolu amee nag ñeneen ci ñeenteel fan bi Idrissa ànd ak moom di doxantu ndax moom xelem dafa màcc woon moom lu ne rek bëggoon na koo jàmbar càmbar xool ba xam loolu lan la moo taxoon bi ñu àndee moom ak malikul mawtu ñuy doxantu nee nañ ragal yàllaam fi ka malikul mawtu gën a nawe ci loolu mooy ànd nañ di doxantu mu ñeewante ko lool ci koor bi mu daan wóor ndax danaan wóor at ñu romb benn tool bu yànji tool bu bëri meññeet malikul mawtu ni ko yow sang bu tedd bi yónnante bu tedd bi bàyyi tey ngaa bàyyi mu dugal la ci tool bi fàkkal la ci loo xamante ni di nga ko mën a xéewaloo doge boo dogee di nga ko mën a jëfandikoo amoon yéene ci moom waaye nag Idrissa dani ko kat wax dëgg yàlla la nga xamante ni suñu borom warloo ma ko joxuma ci ndigal ngir ma jël ko kat du ma ko lekk ndax sama biir bi lu ciy dugg kat lu lew lay doon du ma dugal mukk lu xaraam sama biir bi loolu jàng nañ ci ragal yàlla bi nga xamante ni moom la làmboo woon bi loolu amee nag malikul mawtu gën koo sàbbaale cant ko ni ko kat wax dëgg yàlla sa ragal yàlla maa ngi la koy gën a firndeel ni kat ku ragal yàlla nga mu ni ko ndax tool bi nga mën a bu ma dugg fi daggal la ci ay meññet xamoo kan moo ko moom te xamoo borom lan la naroon ca loolu ma lekk ko gàdd ak ak ak te ñaanuma yàlla gàddu ak doomu aadama biñ jokkalantee loolu nag ba pare nee nañ ñuy doxaat ñoom ñaar ci loolu nag malikul mawt daa taxaw ab diir di xool Idrissa di xool di yéemu ci moom Idrissa nag jekki-jekki ni ko yow malikul mawt yaa may xool ay xoolu yéeme waaye manit de noonu laa yéeme ci yéen malaaka yi waaye tamit ma yéemu ci ay mbir yu bari yaa nga xamante ni ump na ma te bëgg naa koo xam malikul mawtu mawtu ni ko yooyu yan la mun ko bokk na ci dee bi nga xamante ni boroom bi subhanahu wa taala nee na lépp lu mu bind dana faatu te bu ma sañoon ma xam loolu nan la mel malikul mat xamal ko ni ko loolu kat amu ci ndigal kon na bàyyi mu laaj suñu borom subhanahu wa bi nga xamante ni laaj na suñu borom suñu borom ni ko defal ko lu mu bëgg ndax Idrissa fi mu tolloon suñu borom la bi nga xamante ni loolu am na nee nañ malikul mawtu daal di koy faat ab diir waaye laataa mu koy faat sax Idrissa njëkk naa laaj malikul mawtu ni ko damaa bëggoon nga wax ma dee sukuraatu dee métat dee nan la mel malikul mawtu ni ko ah man de xaw ma métat dee nan la mel waaye nag bi nga xamante ni ñaan na sunu borom subhanahu wa mu defal ko ko lool sunu borom ni malekul mawtu mën nga ko faat dekkilaat ko mu faat ko ab diir daal di koy dekkilaat bi nga xamante ni dekkil na ko Idrissa malikul mawtu moo ko laaj ni ko nag métat dee laa bëggoon nga xam la xam ma xam ñaata la après yonente yàlla Idrissa wax malikul mawtu ni ko dafa mel ni maître deede ni mu ko yëgee ni mu mettee kenn mën la wax ni mu mel benn maître bi rek ma misaal la ko yow malikul mawtu ni ko xar boo xamante ni dafa romb boo xamante ni dañ koo jàpp fees ko mu romb ci ngelaw ba lu ko laal mu metti mun ko benn sukuraat bi looloo ko gën a sedd fuuf kon mbokk yi jàng nañ ci maître de nan la mel kon ndakate yonente yàlla Idrissa mooy njëkk a jàngaleel faatu nan la malikul mautu mi jëru sax xamul met de na la mel bi lol amé nak yonent yalla idrisa ni mu réy xel bari won xam-xam lol mu wax malikul mautu azrail niko ko bëggaan bir, mbir nga ñaanal mako suñu borom mu daal makoy koy defalal mun ko lool lan la mu ko dama bëgg nga daal ma yub aras ma daal visiter safara ba nga xamanteni suñu borom tudd na ci téré yi waaye ma visiter aljana ba xam nan la mel malikul mautu lak lan nga jublu mu ko damaa bëgg a safara ba li nga xamante ni suñu borom tere na ma ko ma jéem koo moytu ba duma ci dugg nga xamante ni su ma demee su ma ko xoolee danaa wattu moytu bu baax ba safara soosu du ma du ma waaye su ma visiter avion tamit danaa gën a xéer danaa gën a yokk la nga xamante ni maa ngi ko doon def ci ay jaamu yàlla bi nga xamante ni wax na loolu malekul mawtu malikul mawt ba léegi ni ko xaaral ma wax suñu borom subhanahu wa mu mu wax ma ba xam ma am ndigal ngir indi la bi mu laajee suñu borom suñu borom mayaat ko loolu bi nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala nangul na ko loolu ne nag Idrissa daal di ànd ak malikul mawtu malikul mawtu nag ci la daal di yore jëmmi malaaka daal di ko yóbbu ci asamaan yi bi ñu demee ne nag safara la njëkk visit mu daal di visiter safara visiter fi nga xamante ni suñu borom def na ko ci safara lépp la nga xamante ni borom bi dëxëñ na ko foofu rek nee nañ bés boobu yonente yàlla Idrissa visité na ko ba xam na la mel bi loolu amee nag nee na ci la daal di génnaat dem aljana bi mu demee aljana visité ab diir ba nga xamante ni masalan mën nañoo wax heure am jot na malaaka yi ñëw ko sa heure jot na mu daal di génn waaye bëgg woon sax génn waaye nag dafa yew woon lool bi muy génn summi na dàll yi nga xamante ni moom la soloon daal di ko fay wàcc bi mu fa wàccee daal di génn ànd ak ma malikul mawtu ñu nar a jëm ci waat àdduna mun ko taxawal dafa am lu ma fàtte biir àjjana bi nga xamante ni wax na loolu malikul mawtu malikul mawtu ni ko lan nga fàtte mu ko sama daal laa fàtte ci benn garab malikul mawtu ni ko ah heure bi de jot na waaye mën naa laa may nga duggaat mais bul yàgg nga daal di génn ndax heure bi jot na heure bi nga war a war a delluwaat àdduna bi loolu amee nag nee nañ bi mu duggaatee nag ci biir àjjana ba jël dàll yi wala mu génn waaye génnul mbokk yi loolu jàng nañ ci àjjana neexaay bi mu neex te loolu kum doon yow la di yow suñu boroom dugal la àjjana bëgg laa génne bu doon man mii sax duma ko nangu waaye ndax neexaay bu àjjana neex ak la nga xamante ni suñu boroom dogal na ko te mu nekk la nga xamante ni bët mësu koo teg bët waaye nopp mësu koo dégg bakkan mësu koo nooyi ca la nga xamante ni noonu la ko suñu boroom waxee ci Alxuraan foofu la dugg nag bañ a génn bi malekul mawtu ñëwee di ko génnal dañ ko duma génn ba am na sax ñu ni malikul mawtu ne fa di wërloo moom ci biir àjjana yi waaye borom bi subhaanahu wa ni ko bàyyi ko woo malekul mawtu ni ko neel yonent yàlla idirisa alayhi salaam ndax li mu wax naru koo def ndax dañu woon dafa ñëw visite day delluwaat àdduna ndax loolu li mu wax dafa bëgg a tegee kàddu bi mu ñëwee nag malikul mawtu bi mu ñëwee wax ko idirisa Idris dan ko waa nak nag ngeen ma waroon laaj lan moo ngan nga ne ngat bu nga ma duma du lan moo mun nen suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ni kullu nafsin zaiqatul maut bakkan bu ñam dundu dana ñam de te moonte ñam na dundu ñam de parce que faat ngeen ma faat nga ma dekkilaat ma waaye suñu borom subhanahu wa taala wax ci alquran wa in minkum illa waridha mu lepp lépp lu bind muy doomu adamam ëllëg dina aw siraat te man moonte bi may visité safara jaar naa siraat te loolu suñu borom moom moo ko waxoon waaye nag boroom bi subhaanahu wa taala waxaat ni wama minhum wama ni képp ka nga xamante ni dugg na aljana dootoo génnati waaw borom nag xanaa la mu waxoon nag da ko bëgg a teggi bi nga xamante ni wax na loolu nag suñu borom subhaanahu wa taala woo malaaka yëpp ne sa yaay ne leen man maa bindoon sa azal ni képp ku dugg àjjana dootul génnati kon tëj leen buntu àjjana yi dootul génnati mukk am na ñu ni yonent yàlla Idrissa foofu la nekk ba léegi nii mi ngi foofu waaye am na ñu ni déedéet boroom bi subhaanahu wa taala ruuxam da ko yóbbu juróom euh, ñeenteeli asamaan daal ko fay denc kaste ko fa am na ñu ni déedéet moom kat Idrissa mi ngi wërloo mi ngi wër ci juróom-ñaari asamaan yi fu mu neex dem waaye li ci gën a wér gaal yónnente yàlla Idrissa mi ngi ci kaw asamaan am na ñu ne mi ngi àjjana ñi ñu ngi ñeenteeli asamaan waaye mbokk yi ñaari aaya rek la sunu borom subhaanahu wa taala tudd yónnente yàlla Idrissa wa Ismaila wa Idrissa wa zul kifli kullun min as mooy aaya bu njëkk bi waaye tam bokk na si bi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala tudd na ko waskur fi kitaabi Idrissa innahu kaana siddiqin nabiyan wa rafaanaahu makanan aliyan yëkkati nañ ko ci place yu kawe kon ñaari aaya yooyu rek la Alxuraan indi ci ki nga xamante ni mooy yonente yàlla Idrissa kon mu nekk xissa boo xamante ni gàtt na waaye bari na njariñ ba nga xamante ni mën nañ say jariñoo benn ci melokaanu yonente yàlla Idrissa waaye ni mu amul woon xel ndax ko bu amul woon xel du nangu fexe ba dugg àjjana te app bi jotul waaye tam bu amul woon xel tamit du fexe ba ñam méthode de nan la mel te nyu ñu dég faat ko daal koy dekkil waaye bu amu xel tamit baax kon bu toogaan nit ñi daawuñu ko wër kon loolu jàng nañ ci ni nit ki dafa war a ñaw jàng nañ ci nit ki dafa war a baax jàng nañ ci nit ki dafa war a sell nañ ci kat lépp la nga xamante ne yaa ngi koy def rek maanaam am ci ngërëmu suñu borom subhanahu wa taala moo taxoon suñu borom fonk ko moo taxoon malaayka yi fonk ko waaye moo taxoon tamit malaika mawtu ñëw ci suñu borom subhanahu wa taala ñaan loolu ni ko damaa bëgg a gane ci yonent yàlla Idrissa mbokk yi kon foofu lañ résumé histoire Idrissa rek incha allah buñ ñëwaatee seen beneen émission ci lañuy ñuy continué waat histoire nuux yonent yàlla nuux pan la ko suñu borom yónni woon ak nan la allégué woon ñoñam ba nga xamante ni topp ñu ko woon ak doomam ak soxnaam nan la leen suñu borom allégué buñ ñëwaatee incha allah ci histoire yonent yàlla nuux ci lañ leen koy leeral incha allah. mais bu len faté abonné ci sen falaas sen bok sen mbokk seen xarit oustaz Mame Thierno moo leen ko amuloon alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh